rahmatullahi taala wa sëriñ bi nee na mi ngi nuyu bokki taalibe yi fi teew yépp nee na mi ngi nuyu bokki jullit yi fi teew yépp nee na mi ngi leen di siyaare bu baax a baax kii nga xam ni ñépp a ko bokk lislaam bépp a ko ñàkk rawatina nag yoonu murit ndax ni mu toll ci yoon wi sëriñ bi nee na mu ngi leen di jottali kàddub seex muntaxa akub siyaareem akub njaalam di ko jëmale ci njabootug sëriñ Saliou turi gépp nee na bàyyiwul kenn doomi boppam yi ak doomi xolam yi ak taalibeem yi ak taalibe sëriñ Tuubaa yi ne ci tund wi wépp te mu nekkoon seen jëwriñ nee na moom nag day jëmm joo xam ni ni mu toll ci xol yi day ab yëg-yëg ndax digganteem ak boroomam moo tax nee na li sëriñ Tubaa di wax waxay suma tafat ilaa kan xaxat yaxafta min xawfika hoo kullu ahad nee na daal mooy xaybatu yi sëñ yi sunu borom def ci moom kon siyaar bi nag nee na dana koy tàmbalee ci sëriñ seex ni nga xam ni mooy jëwriñu sëriñ Saliou Touré di ko ñaanal mu yàgg fi loolu tànd ko wér nee na di ko teg ci loxol rakkam itam sëriñ Abdoulaat ak sëriñ Moustapha sëriñ Moustapha mu sëriñ saaliwu muy rakkam ndax sëriñ saaliwu ni mu demee ak moom ka demee ak sëriñ saaliwu ni mu demee ak moom nee na moom itam yàlla sàmm ko dëgëral ko kàttanal ko nee na nag siyaar bi mi ngi koy teg ci njaboot gi gépp nee na mu leen di xamal ne sëriñ saaliwu ku doon liggéeyal Serigne Touba la dundam gépp jox na ko sëriñ Touba ba deseetu ci dara nee na moom mii mat na ci seede nee na bi mu ko tàmbalee siyaar si mat na fanweeri at yu tegal kon loolu nee na bokk na fi ñi ci ñi fi njëkk tàmbalee ñëw yàgg na lool. nee na njabootu sëriñ Abdou Khader gi tam amoon ndigal ci sëriñ Abdou Khader ñu wax ne sëriñ Saaliw mu wax leen ni sëriñ Saaliw Ture bu kenn demati di ko teggi bu kenn demati dakaar di ko teggi man mii seede laa ci nee na wax na toog naa sëñ Saaliw Ture wax ko ba tàyyi ni leen leneen sëriñ Abdou Khader digaloon sëñ bas mii yaa ko ciy sàmm ndax yàlla def na bi mu koy tal sëñ bii du dem Dakar mukk ba dëpp léegi rek la am ku ma koy wax ba dëpp te jaarul fii kon loolu moom daal dafa amoon yëg-yëgub sëriñ Tubaa ci moom moom maanaam fu ma ko gisee rek te sëriñ Tubaa rek lañuy wax sunu borom nag def ci moom barkeel muy nitu yàlla sëriñ Moustapha mu sëriñ Abdou Khadar mas na koo wax ni ko sëriñ Saliou Mbacke nee na ko sëriñ Saliou Touré de lépp lu ma mas a wax teg naa ci sama bët sëñ Matar Jaxate mii xam na ci dara nee na am na loo xam ne kenn mënu ko wax ci mbooloo waaye moom boroom cër la nee na léegi la koy nettali ci yoon wi sëñ Massar Jaxate mi dund na ko ak moom diir bu yàgg boo xam ne dara duggul ci gémmiñam sëñ Massar ñaata fan la fukki fan ak juróom loo xam ni dara duggul ci gémmiñam ba bis mu ni ko nag dama wooroon xaal laa bëgg a doge demal wutali ma xaal andi kon moom loolu rek la ci mën a tënk waaye nitu yàlla dëgg ngi noonu koo xam ni tam ak dëddoom àdduna kenn xamul fu mu yem ca col ga ak ci dëkkuwaayam xam ngeen ni kër gii bu bi liñ ci defar gus néew bi nu ko defaree yàggul te lu ne jaar na ci loxoom ku mu mas gis nga bokk Sëriñ Tuubaa walla nga bàyyi koo Tuubaa loo fekk rek jox na la day joxe ba ki yor dépasse mu nungu ko joxe ko ci bir kërëm kon mom motax ci fajar neena gént de mom daw ko nettali waye li ko ci yem bi fi seigne Saliou bayiko liggey bi mu ko don liggeyal put seigne Saliou dako set ci kërëm man mi xamna ci dara boobu fi seigne bi door a bàyyi am sëñ sali lu mu wax ak mom neena ñu taggo muy jëm ci tolam ya mu fanan xey suba julli fajar doxantu ba dëppaat mu tëddaat gënt sëñ sali lu kéemaane la bi ci guddi neena yalla séré na lii muy wax ci suba gi la gënt neena ñu tok nee na sol yére yu tilim ni gént yi tëdde rek mu mel ni ab dëj daal daa xew mu war caa dem moom sëñ Saliou Touré nee na mu gis yére yi ni mu tilimee nee na mu dugg ci wëli sëb moom am na ku sëñ Saliou Touré ànd waaye xàmmewu ko nee na sëñ bi mu ne ko moom sëñ bi ma jox la mbubb garaam mbubb wala xaftaan lu ci gën mu ne xaftaan day ko gënal mu dem ci walis fi génne yére yi fekk mu mel ni du mbasin mu yëkkati jox ko mu dem ba koy bëgg a sol mu xool ni am na mbasin ci biir mu génne ko jox ko nee na loolu yéem ko xamul lu mu doon waaye loolu tey suba la kon moom moom daal Sëriñ Tuubaa boole na ko ak moom ndax yoon wi mu fi mujjee booba sëñ Sall Touré gëj naa wax ak ñu bari ki ci sunu kanam la maak Ahmed mii waaye bi bi sëñ Bass agsee mu xamee ko bu baax ba tàmbali tudd nag sëñ Abdou Khadar kon mu ne ko ñaanal ci liggéey bi mu ko sëñ Tuubaa moo lay kon moom bu nu ko ñàkkee àdduna sépp a ko ñàkk ndax li mu doon njariñ ci jamono ndax bokk na ci ñi nga xam ni seen borom di leen ruus ci kaw suuf muy jëmm ju jafe ku bëggoon nit yàlla yi nee na sëñ Sall Touré nettali na ko kenn ci nit yàlla yi mu nekk ak moom fii ci kër gi mu ànd ak moom ci Serigne Saliou kooku di ko wax ni ko sëriñ tubaa nee na kon moom ku jege Serigne Touba la. te moom mii dey man na ci seede yoo xam ni moom mënu ko wax ci ab rajo ci yu mu ko wax yoo xam ni moom dem na ba teg ci bëtam kon noo ngi koy ñaanal bu baax ndax ñaan du doy ndax rasulullaay sax dañ koy ñaanal yàlla na sunu borom doole ay leeram te taas ñu ci barkeem te sunu borom dëgëral njaboot gi defal len itam te neena gëm na ni mbirum saa sal touré sa su xeye day gëna jëm kanam rek ndax léppam jox na ko Serigne Touba te loolu nak ci yéen rek la ko Serigne Touba di faye yéen njabot ci la ko Serigne Touba di faye ndax tëlul won ak njabotam léppam sëriñ Tuubaa moom daal nee na xam ngeen ni sëñ salture bàyyilu leen fi dara kon nag nee na na seen xel dal bu baax seen njortu rafet te ngeen xam ni bu ko fi sëñ Abdou Lahad Mbàkke di andi laajoon ko sëñ Saaliwu Mbàkke daloo waxoon ni ninu dinaa leen andil koo xam ni dina leen àggale ca yàlla lool itam fii jamono toll néew nañu dégg ko kon ku gis lim fi jëf ni mu fi dajale taalibe sëriñ tubaay yi ni mu leen benneele ak posté bi mu def ci ñoom nga xam ne sëriñ Tuubaa nu gën a ab liggéey mi kon nag sëñ bi daal ne ñu koy fàttaliku bu baax di gën a sant bu baax gën a feddali seen digg digganteem ak moom ci yéen sëriñ seex sëriñ bi nee na mi ngi leen nuyu baax yaag sa rakk yëpp nee na bàyyiwul kenn ndax yéen ñëpp yéen a fi dig njabootam su ngeen dajaloo di jëmmam kon mu ngi leen koy siyaare di feddali nag digganteem ak yéen la mu jàppoon ci moom tey la ko gën a jàpp ci yéen incha allah lépp lu ngeen nekk nee dina ko ànd ak yéen nee na mi ngi sant bu baax a baax mi ngi leen di ñaana bu baax yàlla dëgëral leen te sàmm leen nee na moom de amul benn jaaxle ci yéen ndax tëdd na at te dara yàqul lépp daa gën a jëm kanam loolu mbirum Serigne Touba mbirum Serigne Touba la Serigne Touba fu mu def dara du ko dindi yàlla rus na def barke ci barab dindiwaat ko yéen nag ku xam sëñ Saaliw li mu liggéeyal Sëriñ Tuubaa jënd jëf ji rek mën naa defar su seeni mbir ci àdduna ak àllaaxira kon amu ci yéen benn tiitaange wóor na ko ni lu mu fi bàyyi day gën a sàmm day gën a ñoŋ day gën a yëkkatiku te dara du ko yàq jërë ngeen jëf sant bu baax a baax sëñ Modou Mbaye Samb sëñ Cheikh nee na nga jox sëriñ bi kàddu gi xam naa li ma ci teg rek sëñ Bas ci li ma doon wax damaa ñëw fii sëñ bi ni ma million bii de sëñ Bas sëñ Bas Abdou Khadre moo ma ko jox daal di ree ni ma ci mbàkke mbàkke moo diw moo diwoo ma ci jox million ak moom ne waaye mag de ku ko bégal dina xam ne am na cummikaay ne ma mag ku ko bégal di nga xam ne am na te sëñ bas bégal na ma kon noo ngi santaat bu baax kàddu gi ki ko yor muy sëñ Cheikh Touré jox na ko Modou Mbaye Samb waaye nun taalibe sëñ Tuubaa yi comme bi boo daan ñëw ñun ngay woo ñu agsi sëñ bi man képp la daan may nga dugg ci biir ma agsi ñetteel leen te la mu doon wax teg na ci suñu bët am na loo wax nag léegi lu la suñu borom man bi nu ko defaree moom ba nopp ba yegg ñépp taxaw di xaar du mat waxtu ñu ne dafa am lu war a ànd ak moom ñépp jaaxle ma gis mu Moustapha mi mu ne mbubbum Sëriñ tubaab yi ñu war a teg ci kawam waaw sëñ bi dafa wax ni bi nga ñëwee ci ñu fi teew fekk nga fi sëñ Xalil mu soxna Momi ak sëriñ Abdoul Ahad mu sëñ Moustapha